sant yàlla bu baax ndax euh, <coughs> góor su waxee yàlla dëggal waxam dafa war a sant yàlla ndax mënoon a demee neneen mais ni ma waxee démb waxuma ko parce que simplement damay def euh, ay ay ay ay misaal wala ay calcul nit soo ko xamee saa yu waxee war nga ko war a xam fan la féete waxoon naa leen le président Macky Sall na mu waxee Paris ak na mu waxee ak devant les maires tàggu tooloo da leen doon tàggu. ndax nga ko démb. ndax wax naa leen tamit ne séeréer la <laughs> su naroon dem du waxee na mu waxee ak ñoom dellu leen nekk benn président Sall élection présidentielle bu musa ñëw day ne lii suma yëfu bopp la élection législative day ne lii yëfu parti bi Mm-hmm. élection locale day na lii seen yëf la donc ci kàddoom ni mu doon waxee maire yi dégguma fa benn yoon mu wax loo xam ne day na lii ñëw suma yëf la mm-hmm. te noonu la ko doon assumer mm-hmm. léegi nag xeex bi ñu doon xeex yépp je pense que à cinquante pour cent moom fi mu nekk solutionné ko du ñu mun lu dul kuy Sénégalais kuy kilifa diine kuy yaay kuy papa gërëm ko ci décision bi nga xam ne jël na ko c'est une grandeur mm-hmm. ndax kilifa kese mooy mun a ñëw taxaw ne lii kat du ci wax ndax jotagu mm-hmm. say parti ñaax la ci yow yaay suñu candidat amuñu keneen mm-hmm. nga dajale tous les élus ñu ànd ak yow ñoom ñëpp ñu jox la seen kàddu na yow la ñu déglu waaye suñu sañoon nga laaj réew mi ñu ànd ak yow ñu joxaat la ko aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur képp koo xam ne partenaire wu Macky Sall nga taxaw nga ne ko da demaat yow yaay suñu candidat mu déglu réew mi parce que réew mi tamit yemul rek ci ay parti politique gu Macky Sall yemul tamit ci coalition réewu Sénégal lañ ko dénk mu koy jiite donc su demee ba jël une telle décision mooy président dafa tëddee jaaxaanaay ba mun a déglu réew mi déglu nag tous les côtés. Mm-hmm. ak couche sociale bu ci nekk déglu na la mu am nag loo xam ne da ngay revenir ci ci nit ki kese moom moo ko mun a àtte muy décision décision. ki koy jël day engager déjà sa personnalité décision ki koy jël day engager li nga xam ne mooy même ton navenir ta réputation bi ñëw mhm. je pense que aujourd'hui le président a pris la bonne décision alors lan moo des nag man maa ngi ñaan képp koo xam ne jógoon nga te candidature troisième candidature bi taxoon laa euh, euh, bañaa déglu Macky mu woote nga bañ muy wax doo ko déglu di toog ci plateau yi di gàññante ak ay nitam maa ngi ñaan loolu yépp fi mu nekk ñu gas ko suul